njaay gërëm la ci euh, teewaay bi euh, di la euh, ndokkeel ci waajtaayu bis bu am solo bi nga xam ne ni mooy tombé ak le 15 janvier ca Diourbel di ñëwuk Cheikhul Khadim ca dëkk boobule ñu ngi lay ziar bu baax Ndiaye. jërëjëf Pape jërëjëf yéen ñu toog ci plateau bi. Mm-hmm. seen plateau bi du wax kenn mais macha allah rek laay wax. Ah, di leen gërëm. Mm-hmm. di leen sant. Mm-hmm. di ñaanal euh, suñu xalifa bi. Mhm. yàgg fi te wér. amiin nag euh, euh, ndongo laa. Mhm. nekk Amérique. Mhm. yàlla def boole ma ak Cheikhul Khadim. mën naa wax ne hasard waaye li ma dal ci moom dafa di lu jafee gis. man. ci famille Tijaan laa judd. Mhm. sama papa nekk mu xaddam. Mhm. waaye la ma gis moom laa ko dem wax. Mhm. ndax kilifa mu jóg toog. talal ma loxoom ne ma ñaanal ma. ba pare ne ma demal foofa nga bokk. te booba ba léegi pap may gis loo xam ne. neexut sax wax jarut jarut jarut a wax. ba tey fii ma toog. musuma xalaat ci mhm. àddina ne mhm. alors bi bien que Diourbel la juddoo que dina demee noonu dina demee noonu waay ah. ah. ba muy génn àddina sama euh, sama sama sama waajur mhm. wax ak man ci Cheikhul Khadim loo xam ne murit yu bari xamuñu ko macha ma xam ne kon mission la quoi yàlla def wallahi toog rek mu mel dañ ne ma jógal dem liggéey ci yoonu Serigne Touba. moo tax boobu ba tey yaa ngi ci liggéey nga bokk ci comité d'organisation wu programme bu am solo bi le 15 janvier daaw ñëw nga fi ren itam euh, dafa lay jaral chaque année nga bàyyi sa liggéey bàyyi sa njaboot jóge Amérique ñëw Sénégal spécialement pour loolu. Euh, ca euh, Diourbel ñun xam nañ ci dara. Mhm. ndaxte suñu tonton nga voilà. <laughs> donc le 15 janvier. nu programme bi tëddee incha allah ca Diourbel. programme bi ni ñu koy defee mooy que mhm. le le dimanche. dimanche bi di ñëw le mhm. treize. Mhm. je crois. dinañu am ngontu maam Cheikh Ibra Fall. ndax bu tudd Serigne Touba tudd. maam Cheikh Ibra voilà donc dinañ def ngontam. boo xamee dañu jógee kër bu mag dem kër Cheikh Ibra. Euh, ak Baye Fall yëpp nag. ak xale yi ci dëkk ci njaareem. kon le nag di mardi. ci la ñuy jógee ci euh, def benn marche boo xam ne dañuy jógee préfecture. Mhm. fa mu daan toog. Mhm. bañ woo ko mu dem signer résidence surveillée bi. Mhm. après dox dem ci fañ ko doon fañ ko teewoon ci résidence surveillée bi. yéeg kër gu mag. ah foofu daal ngeen di tàmbalee mardi matin mardi matin non. mardi matin waaw à 9h ci incha allah 9h. ngeen tàmbalee foofu dem euh, dem kër gu mag. waaw macha allah dañ ko daan def nag. groupe bu ndaw. di ko def. mais ren xale yi ci njaareem yëpp ne. dañ ma doon envoyé ay message ne ma mhm. ren ñun dañu bëgg nga nekk ci gannaaw ñun ñu jiitu def ko oh, ba ci même daara yu ndaw yi xale yu tuuti yi nga xam ne mhm. kii danañ yore seen i àlluwo yore seen kii di dem waaye ah xale yoo xam ne ñoom dañ leen xamee ay musique ay mhm. rab ak yooyu mu xamu groupe express ñoom nee nañu aussi ñoom ñooy jiite affaire bi macha allah waaw kon euh, dimanche euh, kii le quinze Euh, à 9h la ñuy départ buntu euh, préfecture. def marche boobu. dem kër gu mag suñ ko def suñ fa yeggee nag ziyaare. place yi. Mhm. ndax euh, gis naa reportage bi ñu ci def. Mhm. bu doy waar. macha allah nit ñi dañuy romb kër gu mag. Mhm. ñaan ndox ñu may leen ñu continuer dem Touba. te xamuñu ne léppi sëriñ Touba ngi ci kër googu. moo tax ñi xam di fa escale. ñi xam di fa escale. bon léegi nag. nit ñi man dama jóg pour nit ñi xam exactement la fa nekk ak xéwal yi. macha allah comme ça ñu gisal ko seen bopp. waaw ndax. Euh, am na fa yoo xam ne daal moom. Mhm. am nañ ci ay firnde ndax daaw jeeg rek. Mhm. am na ku siiw koo xam ne ñëpp xam nañ ko ci dëkk bi. Mhm. bañ fa yeggee dañ fa place yoo xam ne dañ ne fii la Serigne Touba binde yi xasaay nee nañ ku fi toog ñaan. li nga xam ne lu jóge si kii dina am. mu interrompre imam bi doon wax. ne ko man benn problème laa am. te problème boobu dama leen ko bëgg diis. ngeen kii ko su dañu xam. kan la parce que dafa ne moom benn problème la am magam. te moom problème boobu rek moom mooy kii mu bëgg ñu ñaanal ko ci sëriñ bi ne ko léegi dañu ànd mhm. nga ñaan ñu ñaanalale la macha allah c'était un vendredi mhm. daaw jeeg mhm. vendredi le janvier vendredi bi ci topp ci la affaire boobu sotti macha allah macha allah macha allah moo tax nag euh, ñuy bëgg a yéwéne nit ñi rek. jar na dem ñu ñëw dem xool la fa man xam naa maa di ma liggéey si. Euh, wax leen kenn mu remplacé man ndax man maa nga jur Jurbel euh, ci programme bu mag bi euh, kontaan nañu tonton El Hadj la ñuy wax Ndiaye kontaan nañu bëggoon nañu gën continuer ak yow mais comme déjà émission bi jeex na mais on est obligé. Ah gan yi bàyyi seen yitte ak seen i njaboot ñëw ba fii il faut que rek ñu jéem rek recevoir leen ñu ngi lay gërëm bu.